Hmm? bomb bi set na. bomb bi set na. Hmm? maa wax ni raxas dee set waay. xool leen lu am bombay cin bi su doon taalee sànq togg ci ceeb saf bu amul fii toujours. booy raxas paaka yi da koy teel a raxas génne ko. Hmm. sinon mën nga ko fàtte mu dagg la. mais xam nga man dama tuul quoi moo tax. da nga tuul ma paaka moo tax. sinon boo ko defee rek mën na la gaañ quoi. mu dëgg la kay. fàtte woo kur yàq yële na le. kur yaa ngi nii fàttewoo ko. maa xalaat da ngaa sonn tey maa xalaat. não bisa seviyorum. Ne kuzu? ya, pare bul def nii waaye mii daal pour ndox mi siit loolu am na naas quelques instants rek day soow te du def ndox quoi I'm not gonna go help. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw li la ndab yi la am doon laxas tëj ko parce que ba mu set des courge dëbbkaay bi waaw xam nga ci bant la waaw xooloon naa ko tuuti léegi nag boo laalee rek loolu léegi da ngay xaar bu siit. waaw ah, seen ndab jeex na. si biir. suuf rek tegoo dem ci